def point de presse bi c'est pour leeral population thiessoise ak Sénégal gi yëpp ñu xam nan la réseau communal bu Thiès bi taxawee sama militantisme ak accusation yooyu ñu porté sur le ministre des forces armées Augustin et le ministre Youssou suture coordonnateur du réseau national man politique bu ma ciy dugg en 2008 pratiquement fajar teel laa jóg di déglu journal dégg Macky Sall mu ni bàyyi naa assemblée nationale démissionné naa bàyyi naa PDS je me ni kii am teraanga yu toll nii ak Sénégal nu mu mel moo nangu man je lancé ni damay dugg ci politique noonu laa ci sóoboo bu ma ci sóoboo APR. ci biir département bi mooy bu ñu boolee sunu commune bi ak département bi bu ñu doon réunir ab du ñu am ñaar fukki nit yu mat ñuy dox di dem lu njëkk mooy fësal sama militantisme te defe naa ne koo ni Thiès port ci pionnier APR yi la bokk ñu njëkk APR dina ni la dëggal ñu continuer boobu ñu ngi réunir ci ay kër ci ay école des fois ci hôtel ba coordonnateur départemental bi ni ñu dañuy mettre structure sur place boobu xëccoo amul dara amul ndax nit ñi bëriwuñu ñu gëm ni parti bi dina dem bëriwul woon ci lañ ma fal commissaire itinérant buy monter superviser xool ndax comité yi ni ñu taxawee baax na wala baaxul ndax am nañu fukk cinquante nit yu ñu leen laaj présent ak cinquante ko quatre-vingt-dix-huit mooy téeméeri comité yu ñu monté man maa monté juróom-ñeent fukki yeeg juróom-ñett yi dans la commune dans le département même au-delà du département de Thiès Tivaouane ay Morolan yëpp boo demee dina beneen bi mooy fonction yi nee nañu fan laa jóge mais ku nekk trésorier élection présidentielle 2012 ku nekk chargé des élections Benno Bokk Yaakaar 2014 ku njëkk a monté comité APR ak enseignant bu gën a fës ci APR man la ñu monté comité bi mooy l'actuel porte-parole di gouvernement Seydou Gueye ak le conseiller Luc ci ñu présent woon waroon a présent soixante-seize personne ñoo taxaw lu ci des mooy Macky sàll bu mu fiy njëkk a ñëw cees man lu kenn ñemewul maa leen ko defal te je parle sous la couverture de Abdou Mbow de May jaay de Mor Ngom de Moustapha Diakhaté que ni maa improvisé ab meeting sama koñ nit ñi génn photo yaa ngi nii gis ngeen ko kooku kay bu sonnee ci parti bi ay nit taxaw naan fu mu jógee dañ ko parachute xanaa dañu bëgg leneen te yéen ñëpp teewe ngeen journaliste yi dans le sens boo xam ni journaliste yi boo xam ni ñi ngi naan déontologie chaque fois lu xewoon assemblée générale EFI bi mais bu mu desee voté ba pare seeni kanam la ay nit ñëw jël enveloppe yi xotti jël urne yi xotti AG bi pëtaxlu boobu Youssou Touré nekkagul ministre te il avait dit que ni ñun dinañ ci liggéey pour xam lépp lu ci war pour mu pouvoir installer un coordonnateur au niveau de la commune mais est-ce que mës ngeen maa dégg ma ni maay coordonnateur commune nationale xanaa buñ ma ko falee nit a fi autoproclamé wu ànd ak ay nit def réseau des enseignants. loo xam ni mën nañ koo tureeg GIE la ñuy lebalante ay xaalis seen biir ndax man damaa jàpp ni fu ay enseignant di jëpp defe naa xalaata fa jiir pour jëmale parti bi kanam jëmale njàng bi kanam ak soutenir l'action du président Macky Sall ñun dañoo sori ci ay xeex yooyu diw fii la bokk diw fii la bokk lu tax loolu mooy ñun dañu fekk ab structure boo xam ni président moo ko fi teg muy coordonnateur départemental ñu topp ci ginnaaw topp ci ginnaaw signifié wul ni ñun amuñu ay ambition politique si tey jii bu ma sañoon nekk ministre ñu xam compétence su port Salif Dia port wante nag loolu lépp bu amee nit ñi dañoo war a xam bu ñu fekkee ni dañoo tiim presse bi ñu xam lu ñuy wax ñun saagawuñu kenn xasuñu kenn nous avons travaillé avec nos moyens man Youssou Touré mosuma koo téléphoné gps pèse bien mes mots mosumaa dem bureau mosuma koo ñaan ni ko kaay parrainé sama activité donc ku def loolu kon kay xanaa buy jàppale bi am ñenn la war a jàppale il faut nag dans ce parti que ñun ñu respecter yenn chose la hiérarchie bu départemental boo waxee ñu ne ñii ay mag yooyu département bi la ñu indi mais ñun ay jàngalekat lañ et je peux affirmer fii solennellement que ni fii amul kenn ku fi mën a feesal saalu ay militants enseignants képp tey jii man mën naa feesal n'importe quelle salle non non du de non man du ay enseignants je travaille avec. nombre bu ma am enseignant yoo xam ni dañoo gëm APR wax ma ay militant APR yuy jaay gerte yu bokk ci ay tontine wala groupement féminin wala sama waa koñ wala ñu may sympathisant ñëpp wala nawetaan yu ma nekk moo jàngalekat yëpp moo woole wante loolu arrêtoo ndax yàgg nañoo gis yu mel noonu ci dans les partis politiques feesal saal au moment venu nombre bu ñu soxla ci ay suffrage sax duñ ko mën a am donc ñun de lu ñu tax a jóg lenn la mooy action président Macky Sall mooy politique bu muy mëne à travers le plan Sénégal émergent ñu jàppale ko at bu élection amee en 2017 ñu fal ko au premier tour bu ilaa bu fekkee ni 2019 ñu fal ko au premier tour ñun ci loolu la ñuy liggéey donc l'action de Youssou Touré ñun wax nañ ko le ministre Youssou Touré il n'a fait que rétablir la vérité fu dëgg féete la dekk lépp lu ci mënti am ñun de nous le félicitons ndax xam na ni il a élu le bureau légitime boo xam ni dem nañu élection xotti wuñu enveloppe xotti wuñu bulletin pour que bonne marche du parti ak parti bi lu mu ñu sant nag à logique loo xam ni mën nañ ko doxal dinañ ko doxal suivant les orientations du parti wante nekkuñu ñu fi pour xeex wala pour saaga diw at pour diw ndax loolu bu ci nekkoon rek tey jii ñëpp mën nañ man mii mën naa ko ndax tey jii bu fekkee ni wax intrinsèquement ci sama personne rek ndax defe naa ni liggéey naa fi loo xam ni président waroon na maa mën a def ministre wala PCA wala député wala kii wante mosoo dégg sama gémmiñ ma revendiquer ni lii te j'attends le moment venu bu ma ko yàlla joxee ci mandat bi alhamdulilah bu ma ko joxul ba keroog may kii je demeure convaincu que ni dinaa nekk un militant de la l'APR. intellectuel dama yaakaar ne ñun dañoo war a dépasser lu bari ñun intellectuel lañu nous sommes des enseignants donc dañoo war a dépasser lu bari ànd nekk benn parce que loolu la suñu président bëgg te lépp lu suñu président bëgg ci ñun ñun loolu la ñuy dox parce que nit ki boo nekkulee benn doo développer dara. dara du baax yaakaar naa am nañ ci sax njàngat bu ñu defoon ci local yi weesu li ñu xaajaloo woon moo tax ñu gagné ñu ci local yi weesu yaakaar naa loolu war na doon leçon ci ku mu mënti doon moo tax tey jii ñu woote pour ñëpp képp kuy enseignant APR nga dund ne yow APR moo la ñor ñu ngi lay woo bu dee moo la ñor laa wax ñu ngi lay woo bàyyiwuñu kenn dañoo bëgg ñëpp nekk benn parce que division du indi dara baaxul ci fenn division baaxul ci benn réew donc ñun loolu la ñuy wut pour falaat suñu président en 2017 ou en 2019 ñun enseignant APR commune Thiès loolu la ñu soxla loolu la ñu bëgg. te li ñu tontu si euh, li ñu wax ne